المصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والملة السلام عليكم ورحمة الله leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaare di rafetlu taxawaay bi fii ci jumaa ji di wax ci kàddu sëriñ Abdou Khadre Mbacké mi nga xam ne moom la Euh, moo jiite euh, kuréel gi nga xam ne ñoo doon indi liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu sëñ bi liggéey bi nag mooy euh, xasida yi nga xam ne ñaare lañ daan faral di bàyyi rek nuñ ko bindee baax na sëñ bi amoon yéene liggéey liggéey boobu mooy mbind bi ñu toppaat ko topp bu leer boo xam ne daa sàkk kuréel boo xam ne dañ ci liggéey liggéey bu xóot di borom xam-xam yu bari yoo xam ne Euh, dañuy dajaloo di ko di di xoolaat mbind mi ba ñiy bind ak di ñiy moolaat man cee sukkandikuwaat mu nekk delluwaay ba mu amee nag fekk yàlla dogal na amoon na ay mbokk yu am solo yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey ku ci mel ne suñu suñu Mustafaa Absa liggéeyoon ci liggéey bu rëy bi suñ bi gisee liggéey boobee nag mu daal koy tàmbalee wane ne kon mas na ko tàmbalee xool ñu jox ko kuréel bi mu topp ko topp bu wér boo xam ne nii sukkandikukaay la ci mbind moomee ba ñëwee it ci bëgg yaatal gi Sëriñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàlla yàggal te dëgëral ko ni bëgg xam-xam ak yaatal gis na ne yaatal gi ci mbind mi baax na si ba àdduna bépp mën koo jàng mu daal di euh, euh, sant moom it ñu mën koo yaatal fekke boobu it sëñ bi Euh, suñ bi si boppam maanaam euh, bëgg-bëggam boobu suñu borom it ni koy dogale ak ni gaawee rek suñu suñu jiil mii nga xam ne ñëpp xam nañ ko si mbind mii nga xam ne ba mu koy def kenn xalaatul woon dañ ko mas soxla daanaka mën nañoo xam ne bindoon na lépp ñu di tàmbalee itam ci mbind mooma ba tax na mm, def ko ay diwaan di ko segg di ko saytu ba nga xam ne xasaayit gu gu nekk fenn du fi nekkati mu liggéey bi rek boo xam daal suñu Muntaxa moo ko def ci euh, ndigalam jiital ci suñu Cheikh Fatma Mbacke moom suñu Moussa Bassirou mu koy taxaw ak suñu Khalil Mbacke moom suñu Moussa Absa suñu Mbacke Abdourahmane ak suñu Abou Mbacke Bassirou Mor ak suñu Mountakha Mamour Bakala ak ku ñuy wax Serigne Ibrahima euh, Diouf ak sëñ Ibrahima loo euh, ak mbooloo mu bëri moo xam ne daal ñu ngi ciy liggéey liggéey bu xoot boo xam ne su génnee nag day wax fépp foo xam ne ni barabu xam-xam la ak barabu fu ñuy dajee la ñu ko fa yóbbu loolu laa waral ñu indi ko fii ngir mu euh, jël li nga xam ne mooy liggéey boobee mën ko tusaare moom it di ko jox gan ñi ak di ko bàyyi fii ci barab bi ngir di ko euh, siyaare di ko xool di nekk mu nekk delluwaay ñuy wax nag ci turu suñu jili mbàkk mi nga xam ne moom moo jiite délégation bi ngir ñu indi euh, liggéey bi ñun ñu it ñu bokk ci liggéey bi ñu bokk ci ñuy taxawul suñu Cheikh ma liggéey bi kon loolu moo ñu fi indi woon di ndigalul sëriñ Cheikh Fatma Mbakke di njiital sëriñ Dili Abdou Khadir Mbakke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fikri wa qawli wa hadi Take it in.